doomu aadama bi kon war nay xalaat li ci kanamam muy toog loolu bërëb boo xam ne day wéet di dellee si tra yu bàmmeel ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ ma see naw nit naan ko mën a jaamu yàlla la laaj ndax na mu demee ci fàttaliku dee buñ ko nee dee nag day moom taxul mu di ko faral la def ci xelam mu ne kooka day fa ngeen ko teg néewu fa waaye bu fekkee ne dañ ne ko daanaka du jóg ci gémmiñam daf koy far fàttali ko ko waxtaane mu daal di ne waaw kañ kooku mooy waaja ndax dee moom ku mu nekk ci sa kanam te xamuloo kañ la doo nangoo boo ko faralee fàttaliku doo nangoo jaay mukk sa àllaaxira jëndee ko àdduna te jaay sa àllaaxira jëndee ko àdduna ku delloo siwul sa xel rek danga nga ko def te doo ko yëg boo gisee ñu naan toog benn béréb xalaat senn saa rek ngay xalaat li ci sa kanam moo gën jaamuk at yeneen ulama yi ne moo gën jaamuk téeméeri at delloosi gi mu lay delloosi di nàmm sa di ko setal ndax boo dee fàttaliku dee day tax nga ragal yàlla ragal sa ragal bàkkaar boo dee fàttaliku sukuraat day tax nga ragal xisaab ragal xaqi jaambur yi bu fekkee ne da ngay fàttaliku itam tiraayu bàmmeel daan tax nga wattandiku yenn ti moy yi taxawaayu bis penc ba noonu yooyu nag bu fekkente ne xale bi nga xam ne dafa jóg jëm ci adduna boo xam ne dana wuuteeg nun àdduna bi nu nekk ndax fi mu ne buñ seetee ñi gën a bari ci nun ba ñu juddoo nekk jullit ba tey ñu ngi ci lislaam ñu ci ñuy moyat ñuy sàgg nag lu ñu mën a def ñu ngi ci lislaam léeg-léeg ñu dégg waxtaan wu leen delloosi ñu dellu gannaaw te loolu rek xéwalu suñu borom la léeg-léeg ñu tiim ku dee wala ñu xamoon koo xam ne kii daawuñu tàqalikoog moom ñu xëy suul ko gisatuñ ko léeg-léeg seen xel di dem ci moom loolu rek dana jàjjik nit mu dem waaye nag xale yi nga xam ne ñooy ñëw suñu gannaaw ñu jara ittewoo seen mbir la ndax bu ëllëgee bu ñu réeree daañu nu poñee nu lu tax yaruloon nu woon démb te yarub tey nit ki day delloo si xelam xam ne du caa génne yar booy fab di dóor rek la déedéet xale yi léegi gannaaw dañuy wëndeelu dañuy dugg ci biir àdduna bi fu ne la dem kone ne la ñuy dajeel xew-xew yi xew yu mësula xaw yoo xam ne maam yi xamuñu ko woon bàyyi xamuñu ko woon dañ koy fekke te liy wëlbati nit ñi bari seytaane def yooyu yëpp mu di ay gànnaay mu gën a bari doole lool xale yi li ñuy def moo di di waxtaan ak ñoom ndax ku am njabootu tey doo noppi de boo noppee rek bu ëllëgee yow ci sa bopp da nga jaaxle moom dana sonn waaye yow da nga jaaxle da dëkkal ci noppam ko wax li koy lor di ko xamal na mu koy lore di seet ña muy àndal di seet ña muy toogaaleel ndax mag mi sax ci boppam bu fekkee ne day des lu mu jot lekk nu ne la xolam di mel bu dee ku mu jot ànd ak yow taqoog yow lu jëf ju ne mën na koo def jullit bi day tànn béréb yi muy dem di tan ñi muy àndal di tan ñi muy takkool ak ñi muy xarit ndax fa innal muqarin bil muqarin yaqtadi fa innal qarin fa inna qarinan bil muqarin yaqtadi yonent bi sallallahu ta'ala wa sallam dafa ne nit ki ifal kul ma shi'ta taf'al mithluhu كل ما شئت تفعل مثله وخاللا من شئت تغدو شكله لكل لولا نيخ واي لو لك رك نلا mel la sa xol di mel ba با غاي تاغو اك موم فكن لك غالو haram doo ñaan ñu nangu ko doo julli ñu nangu ko te lu xaram loolu fekk mu ngi ci sa biir dafa lay xiir ci moy daf lay xiir ci sàggan day tayyeel daf lay tayyelloo jaamu yàlla fekk lu xaram loolu nga ci sa biir bu fekkente ne itam yaa ngi tànn xarit di ànd ak moom di taqoog moom dangay mujj mel ne moom moom ngay doon rek mooy waxaale leen ma chita tax du chek la ko dangay mujj nekk di meloom melow nit kooka meloom yi ci nekk moom yépp nekk ci yow ndax boo gisee ñuy wax sëriñ sëriñ du lenn lu dul ki ngay roy ki nga xam ne da ngay déglu ay waxam mu jëriñ la nga gis ko sa xel dem ci yàlla mu di la ko faral a fàttali ndax yonent bi sallallahu alayhi noonu la daan def ak saaba yi daf daan def fu mu toog ak ñoom di leen delloo sil ëllëg di leen xamal ni nga xam ne sàggan ak tayel noonu lay taxe nit ki di ko ñàkk ëllëg bis bu ñu taxawee di peese ay jëfam jëfam yu rafet day dal di néew loolu ay bàkkaaram bari loolu tax ak saxaaba yi ni mu ci amee woon ñoo xam ne ñii seen àjjana daanaka dañ daan janloog moom it teewul ñu xeet li ñu daan def ndax teew gi nga xam ne moom la yomal xiyaam di teew ci seen xol ba mel ne dañ koy gis teew gi nga xam ne moom la suñu borom jàlla jalaaluhu di teewee ci seen xol ba mel ne dañoo janloog moom ko mu tiim leen ba lépp lu ñuy def yàlla teew ci seen xel teew gi nga xam ne moom la seen jëf lu ñu jàdd lu mu néew néew ñu seet seen moroom yi ñu àndal nga xam ne defuñu ko ñoom ñu ñee leen fexee def leneen loo xam ne dana tax ñu jot ñooñu du ñu nangu kenn ku leen raw ci seen moroom yooyu loolu teewul yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen daan dàggi fu mu toll di wax ak ñoom naka noonu kon ki nga xam ne aju na ci yow gannaaw yow ab sàmm rek nga te ëllëg li nga sàmm dañ la koy laaj xale bi nga xam ne yaa ko jur wala nga amee ko te bu ëllëgee ñu di la laaj nan nga ko sàmme woon foo toll kon yow ci sa bopp yaay njëkk a amee melow rafet mu soog la cay mën a roy waaye bu fekkente ne yow mi yare yaru woo ki nga yar du yaru mukk mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon buñ gisee seen influence maanaam li ñu def ci nit ñi di lu dëgër te du dañ ba léegi ñi leen gisoon ak ñi gisoon ñi leen giseen sax li ñu lay wax dañ koo melowoo ba nga xam ne bu buñ la waxul woon dara te nga dëkk ak ñoom it da ngay dal di jub kon borom kër bu nekk dafa war a fexe ba këram nekk milieu boo xam ne milieu njub lay doon di milieu lislaam boo xam ne ku fa juddoo bu la kenn waxul dara it doo xam lu bon dangay xam lu baax rek di ko def ndax bu fekkente ne soxna si nga xam ne mooy lekkool bi njëkk ndey mooy l'école bi njëkk ci xale bi kon ñoom am nañu responsabilité yu rëy ëllëg ndax bala ñu joti ci bàyyi mi xëy di liggéeyi di wàcc ak di tukki di dem ak a ñëw di toppatoo ji lu muy dundalee ay njabootam yaay ji nga xam ne moom la doom di taqool mooy lekkoon bu njëkk bi te moom la responsabilité am gën a rëy te ëllëg moom lañu ñu njëkk a layool fekkee na yaay ji ku yaru la ku jub la ku bëgg lu baax toqi ci xale bi balay agsi buy agsi ci baayam day fekk muy xale bu jub bu jógee ci baayam dem ci jàngalekat bi fekk muy kilifa gu jub gu koy jaarale ci yoonu jub bu ci jógee dem ci mbedd mi fekk moromam yépp noonu la leen seen yaay yare ak seen baay du génn mukk ci milieu boo xam ne milieu njub la milieu farlu la milieu muñ la ndax yooyu yëpp dañ koo jëmbatoon ci xolam ba muy xaleel yaayam di ko ko xamal ak baayam bu fekkente nag du yaayam du baayam kenn ku ci ittewoo mbirum yar wala ittewoo ëllëgi xale bi wala ittewoowoo ëllëg bu ngeen taxawee di laayoo ci kanamu yàlla nga jur ko rek bàyyi ko ni baahima bi di def sequlook moom dara lu dul jox ko mu añ jox ko mu reer jox ko mu ndékki doo ko yee mukk doo ko laaj mukk ñi muy àndal ak si muy dem waxtu wu ñëwee rek baax na bu fanaanee ci àll bi wala mu ñëw 4 du matin rek sa yoon nekku ca te day yow yaay sàmm bi nga xam ne bu ëllëgee dañ lay laaj na ko sàmmee woon bu fekkente ne nag yaay ji nga xam ne mooy lekkool bi njëkk ci xale bi ku ñu yar la te xam ngeen ne jigéen de moom lañuy dénk góor yonent yi ak wàllu yi ak xukamaaw yi yépp ay jigéen lañu leen dénk suñ borom nag balay dénk jëmm ji roogu diis dana seet ba xam àttan na ko wala déet boo xamee ne am na ay jikko ak i melo yu ko mën a dékku te kàttanam ci ngëm àttanu ko ñu fab ngëmuk gaa ñi nga xam ne ñoo séq diwaan ba te nekk ca gox ba ñu séddal leen ko ñu yenu ko waaye bu ko defee dana ca jëriñu dana ko texeel waaye nag texe gu yem lay doon waaye bu fekkente nag moom ci boppam dafa sell sellal biiram sellal bitim xam ne mu yare doomam wali ba wala yonent ba lu mu màgg lu mu am ëllëg ñoo koy bokk al umm madrasatul na kon yaay mooy école gone yi kon ciir bu njëkk bi moom lañ ko jox bu fekkee ne def na xàqam def waru garam ba mu mat léegi wajur wu góor wi soog a ñëw moom nag moo gën a jafele ndax day fekk ki muy yar am xel am ay bëgg-bëgg di dem di dikk te kee moom ba mu ko amee muy yaay ji xale bi demul dikkul kon moom ci boppam mën nañ ne lu ne ci moom moo ko def ndax moo ko ci def ndax xale bu fekkee ne magam yi dañoo jub xamuñu lu bon nekk ci njub yaay ji nekk ci bu jógee du jaar wenn yoon lu dul yoon woowu jaar bu fi jógee baayam moo ko war a jàngal diine njàngum diine nag du mën a fanq njàngum àdduna njàngum àdduna mi am na ci loo xam ne daf nuy xamal daf nuy dimbali ci sunu diine tax nit ki bu génné ci jamono bi may wax aduna bi dim démé té jangul dara xamul dara waxuma sax mag ñi nga xamné xeyna raw nañ ba nopi waye xalé bi ñi aduna bi gëndo nga xamné lu xew fa gëna sori ci penku balay ngoon mu aksi fi nun la xew ci fa gëna sori ci sow day aksi fi nun nit ki joggé fu nek nga diko gis mu dikk ku melom ak lamu andal xalé yi judd fekk aduna bu mel dañoo war a gànnaayu gànnaayu gu du dara lu dul nañu xam àdduna bi ñuy dugg na mu mel nañu xam li ñu amee muy diine lislaam lu mu doon nañ xam ne ñeneen ñuy woote leneen ñi ngi ci àdduna nañu xam ne ñi ci lislaam ñi ci jullit ñi du ci du ñu ñu ëpp doole ci àdduna du ñu ñu ëpp ay pexe du ñu ñu ëpp ay jumtuwaay waaye nag ñoo yor dëgg bu ko wóoree na ñoo ne ci dëgg mu wóor ko ne luñ ko won ëllëg te du lii it ay caaxaan la yoo xam ne du dëgg mu wóor ko ne xam lenn bokkul ak xam lépp ki nga xam ne dafa xam médecine mën a faj tekkiwul ne dafay ingénieur de point G dafa mën a tabax xam tabax gu ne ak lu ne nañ koy bindee nañ koy liggéeyee ba mu taxaw ki xam mathématique tekkiwul ne dafa xam itam histoire kon bu duggee ci àdduna bi gis ñu amee xam-xam yu kéemaane itam lu xam-xam ba bari bari lu mu yéeme yéeme ne ko wóor ne lii dëgg moom mooy lislaam ji mu nekk te ñii dañoo spécialisé ci leneen jàng loola xam ko waaye jànguñu lislaam moo leen ci téye dugg ndax bu fekkee ne xale bi dafa am juróom-benni at ñu dugal ko école muy jàng lekkoon ba am baccalauréat am jóge fii dem université bu mën a dem moo xam dugal la wala Amérique la wala feneen léegi li muy jàng li muy liir mooy courant de pensée yooyu nga xam ne ay boroomi xam-xam yoo xam ne xamuñu luy lislaam te seeni xalaat dong la xalaati doomu aadama dong la ku di nga seet marxisme léninisme am na fi jamono yoo xam nit ñi dañ ko def ne diine gëm ko muy lu rëy ci moom ñoom ñu fonk ko naw ko lool gëm ko nit ñi nit ñi gëmee yàlla waaye gannaaw xalaati doomu adama dong la woon nu dem ba ndax nit moom lu yàgg-yàgg dafa tënku ci jamonoom tënku ci bérébam tënku ci tangam tënku ci li muy gis nit gis-gisam lu gàtt la Karl bi muy indi xalaat yooyu at ya mu dund ak fa mu doon dunde ak li mu doon jàng ak li mu gis dong fa la xam-xamam yem waaye la mu bind du woon alxuraan léegi gis nañ ko leer na alxuraan ba mu fi dikkee ak léegi leew mat ñaari junni at ak juróomi téeméer daanaka leew mat ko te ba léegi bis bu tey lay gën a xew kon nga xam ne nag doomu aadama moom lu xalaatam ñaw ñaw lu xam-xamam bari bari bari bari bari bum la nax xam na leekat waaye li nga nek mum xamu ko gaa ñooñu nga xam ne dañu fee joge kon lire courant de pensée yoy mu yem leen bañu gëm ko te doom aadama ne ñoom def ko li tax ñu gëm loola ba bàyyi ko modi di bañ fi joge amuñu won yobal xamuñu won dara ci diine seeni wajure leen ñom bu ëllëgee buñu lay ak ñom yey leen ndax buñu déllu sé dañuy japp ne kat ñi fi nek liñ xamulé tax ñu nek ci diine ji waye buñ xamone kon communisme lañuy gëm wala capitalisme wala leneen ko kon xalé bobu ay wajuram lor nañ ko da xamaluñ ko lim warona xam balay dugg ci aduna bobu ndax aduna bobé ñu jëm dafa am lu mu laaj te moy gannaayu am lo, yalfando, ak lo lal te lolu moy nga wëral sa gëm jema xam l'islam ji nga nek lu la ci leunt nga laaj ko ba xam fi mu teggok ni mu mel yeneen diine yi ci des ak yeneen xalaat yépp loo ci laaj bu soobee yàlla ñu xamal la ko ndax dañu ne xam xam-xam xaw ma bokku ca ndax dañu ne sàmm bi na bukki yëg te lii gën a baree ci àll bi la gën a bare ak xam till xam seeni béréb farlu mën a wàññi jur gi yamale leen fay war a yem moo tax jamono bii ni nga xam ne boo seetee xekmatu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ni mu waxee ne sëriñ ñett la cheikhu taalim bi mooy professeur bi bu la jàngalee tàggoo naa yow amee lu la leneen bu ëllëgee sax mën nga bañ a daje wala boo daje moom doo ko xamati cheikhu tarbiya mooy ki nga xam ne moo lay yar kooku lay yar boo amoon sëriñ boo jébbalu ci moom it du tee cheikhu tarbiya maanaam ki lay yar xamal la sa diine xamal la adduna bi nee na kooku bokk na ci ay chartam na xam jamono bi xam yàqu yi fa ñuy jóge xam na mu demee lépp lu ci nekk war na koo xam waaye du caa gin dafa war a jàng lislaamam rek yem ci bu ko defee ëllëg si biir dana ay lënt te dana bari ñoo xam ne du leen mën a waññi ndax la ñu xam te xamuñu ko te xamu ko moom lañ koy lëeree waaye bu fekkee ne dafa bëgg jubbanti bëgg a yeete bëgg leeral na fexee xam lépp limaamul xasaali radiallahu taala anhu noonu la defoon jamonoom xam ngeen ne falasifa yi maanaam philosophie ahmadul kundi ak ibnu sina ak bi ak ñi ñuy tuddee néoplatoniciens yépp dañu wax jàngoon philosophie ba xam ko lool am ci ñoom ñoo xam ne ay jullit lañu ñu bind ay téere di defi conférence di théoriser di walbati nit ñi di leen jàng di leen xamal philosophie di leen indil ay sik ci diine wan di leen sikkloo diine di leen gëmloo philosophie limaamul xasaali yu gis ne ñi nga xam ne dañoo bind ay téere di weddi philosophie yooyu yépp ak di xam le ne li ñuy wax ak réer la du dëgg yépp li tax amul benn taasir amul benn jeexital ci nit ñi philosophie yi dañoo daal di ne ñii gis ngeen li ñu gëm rek lañ wax alxuraan lañ ñuy wax ak hadith te waaye waxe wuñu xel loolu nag fanatisme rek dañu ko dañ leen ko wax rek ñu gëm ko waaye li liñ leen di wax ñoom ubbi wuñu seen xel ba tax na kon ñoo ñee daan bind li tax amuñu benn influence bu ñu gindee nit ñi ñu itam philosophie yooyu am sikki sàkk wala ñu deng deng wala ñu wëlbatiku li ñu umpale philosophie limaamul xasaal yi nag daal di jàng philosophie ba bind ci téere maqasidul falasifati ba nga xam ne xam na li philosophie bind yépp ba di ci taalif mu dellu si nag soog a bind taxafutul falasifati wane ne nag ne philosophie li ñuy wax duma ma leen weddee ay alxuraan wala ma di leen weddee hadis ci domaine bi ñu dugg leen di fekk ba rey leen ci sukkandikoo la ñu sukkandikoo ci xel ak philosophie boo wane ni démontré bu leer ne li ñu doon wax yépp dara wóoru ci lépp ay hypothèse rek la hypothèse nag feek expérience vérifié wu ko mën na comporter dëgg mën na comporter fen mu dem nag ba wane ci expérience ne li ñu wax lépp dara du ci dëgg du mu bindee nag taxafutul falasifati la sooga suufeel turi philosophie yoon ci penku yépp ba ñoom ñëpp ñu wedam nit ñi bàyyi leen wan leen gannaaw dal di walbatiku ñëw sowu ci fi ñuy wax Andalusi mooy Espagne ak Portugal léegi booba l'islam daf ko yilifoon ndax jullit ñi xam ngeen ne Espagne jullit ñi yilif nañ leen arab yi yilif nañ leen ñetti téeméer juróom-ñetti téeméeri at soo soog fay jóge nañu def itam ba ñu nangu réew ma ci seen loxo moo di sàggan wacc la l'islam digle woon waaye ma lislaam bu fekkee ne xale bi jox nañ ko gànnaayug l'islam mooy kii mën a defar réew ndax réew boo xamee ne ñëpp wacc nañu intérêt personnel nga xam ne kenn ku nekk yaa ngi fexee jëriñ ay jullit ngir ëllëg nga am maqaam mu kawe ci kanam yàlla ci bis penc ba nga xam ne yow xam nga ne am nga ay devoir ay warugar warugar yooyu fas nga yéene taxaw ci ba dara du ci manqué dara du ci mejj mu wóor la ne yow yow jullit bi yaay soldaar bi aar réew mi bu ëllëgee doo jaay réew mi ndax xam nga ne benn jullit boo jaay bu ëllëgee sa alaxira yàqu ndax xam nga ne képp koo yàq addunaam mu yàq sa alaxira nga xamne yow julit bi di xalel ëlëk yaay nek atté kat bi atte nga xamne bo atté ben masala mo xamne du dëgg wa man lam yaxkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun fa ulaikumul fasiqun fa ulaikumul zalimun da nga taxaw ci kanamu yàlla loolu teew ci sax ci sax kanam ba nga xamne buñ la joxoon aduna ak li ci biir duñ la mëna ger mu wër la ne yow xale bi di julit bu ëlëgé yaay gouverneur bi nga xamne yaay yilif région bi mu wër la ne xaqi ben julit boo ko gàddoo bu ëlëgé da nga ko laay wata da nga ko yóbbaale ci sa bàmmeel te dana la xatal mu wóor ne la yow jullit bii di xalel bu ëllëgee yaay professeur bi nga xam ne yaay jàngale ci école yu mag yi bu ëllëgee ko koo xam ne kii ubbi nga boppam baragal loo ko yàlla wala nga xam loo ko xam-xam boo xam ne dana ko jëriñ bu ëllëgee dana yokk sa maqaama yi man xiyam te dëgg la musal waaye waxtu woo xam ne bii incul nga maanaam euh, dugal nga ci boppam loo xam ne du dëgg mu lor ko keneen ku mu ko ku mu jàngal loola mu lor ko keneen ku mu xamal mu lor ko wala li nga xam ne ci lañ lay fayee mu di jàngale bi nga ne naa def loo xam ne day wàññi njàng mi moo xam da ngaa toog bañatee jàngale ji wala nga nekk ci classe bi di waxtaan wala nga xam ne da nga caa nekk jàngale yoon li nga war a jàngale di jàngale loo xam ne lii bokkul ci programme bi te day lor xale yi ëllëg wala muy wàññi seen ngëm mu wóor la ne bu ëllëgee responsabilité bu mag boobu dana tegu ci sa kaw mu wóor la ne yow xale bii nga xam ne jullit nga bu ëllëgee mën na fekk ne yaay ilimaan ji nga xam ne yaay jiite ci jàkka ji bu sa julli boo xamee ne bii nangu nañ sa julli nangu julli ñi topp ci yow ñëpp waaye waxtu woo xamee ne bii lekk nga lu léewul ci sa biir sa julli googu duñ ko nangu te ñi topp ci yow it duñu ñi kenn duñ ci nangu julleem mu wóor la ne yow mii nga xam ne yaay xale bi ëllëg yaay yori réew mi te boo yore réew mi bu ëllëgee ci si biir yenn bu diis la yàlla teg nga xam ne yàlla fas na la yéenee jox maqaam mu màgg wala mbugal maqaam mu màgg nosi jullit yi nekk ci sa kanam ci sa loxo nga am kàttanu mën cee jëf looy si jëf ci lu baax kenn ku ci nekk la mu jëf yow sa jëf yoolam dana fukki ca jëf ji nga xam ne kenn si ñoom moom la jëf ndax maqaamam béréb bi nga tooge moo ko war nga def loolu ci sa xel xam le ni itam boo sàgganee wala nga yàq itam noonu lay réyee loolu lépp bu fekkente ne xale bi jiitu na ci xolam bu ëllëgee réew mi du man lu dul jub waaye réew ku ko mën a yorit loo góorgóorlu góorgóorlu bu fekkee ne baadool yu jubuñu kenn yaru leen kenn jaaralewul leen yoon réew ma lu yàgg-yàgg loo góorgóorlu góorgóorlu botul day suux ndax jullit nit ñi mbooloo mi mooy peuple bi daanaka ñoo amee réew ñoo amee réew bu ñu bañee dara loola du sax bu ñu bëggee dara loola sax li ñu bëgg nag nay lu baax nañuy sàmmoonteeg ni nga xame ne l'islam boo ci nekkee bu fekkente ne yëkkati nga benn fitna mooy lo xamni li lu melne rewalt la wala luy indi ay la kep ku ca de ya gàddu ba kanam bu ëllëgee ya koy layo kon da nga jup da nga jema a jaaral nit ñi ci li nga xamne moy yoon moy sharia te sharia moom dafa sop jam jam nak mbokkoo gi nu doon wax ci biir jam rek la xaj te mbokkoo ngi tàmbalee ci bi nga xamee ne jullit bu ne yéene nga ko li nga yéene sa bop mom nga yéene julit bu nek mom nga yéene itam mbindef mu nek doom adama june lolu sax ci yow nga jëflante ak ñom lolu mbokk nag dañu ne alalu yàlla la ndax jullit ñi bu fekkee yàlla ci boppam daf leen a yeew ci buum goo xam ne ku ko dagg bu ëllëgee doo am lay bi nga xamee ne sharia ci boppam bu fekkente ne fii mu nekk ci sharia fiq bu ñu ko dee jàng daanu gis ne boo rombee fii xarum jàmbur wala béy mu laxasu ci buum ba buum gi xerandi ko mu wër la ne Minit mu dee te borom jegewu fi mun loo dem waxi ko bu fekkente ne boo ko dundee boo ko dindee mu dund yoon sant na la nga làqar ci buum gi mu dund boo xamee ni itam boo ko reyul mu dee yoon sant na la nga rendi ko waaye loolu kañ nga koy man bu julli ñi defee seen bopp benn ndax boo rendee xar mi ci jamono joo xam ne ni jamono ji la mel xam nit ñu bari dañoo dëng te duñu def lu jub day dal xalaat lu dul ne rek yaa ko tey rey ko da nga maa añaane te mën na la yóbbu police lolou yep likoy waral moy nit ñeemelul nañu waramel mel bo gisee ñu naan sarax limuy am am am doole nga xamne bu ëllëgee yomal xiyam ñetti kër ya fa nek nga xamne ne dañuy nyet jant bi ba yuur nit ñi xet muy bëgg laal seen bopp ñak wi labal nit ñi bu keroogee ñu naan ñetti kër ya fa am waxtaan nañ ko bataay genn kër gi moy sarax ak li sax di am am doole lebal sa mbokkum ko ko doole ndax bu sarax de ben leb leb leb le di fukk ak juroom ñett noonu la ko ulama yi waxee sarxe benn la leble fukk ak juróom-ñett la waaye booba mooy bi nga xamee ne boo lebalee sa mbokk wala sa xarit wala koo xam du def ci xelam lu dul nam la fayee waaye bu jamono demee ba nga xam ne koo lebal du la fay wala nga topp ca ba ba sonn ca rek dootoo leble ndax koo lebal du la fay kon jullit ñi ñoo xañ seen bopp tuyaa bay leble loolu lépp dafa aju ci yar bi nuy wax yar bi mooy mën a tax mbokkoo gi itam am yar bi ak njàngale mi jàng moom ngir nit ki ñu limaale ko ëllëg ci olamaa yi borom xam-xam yi lu yomb la ndax boo xamee say farata yi boo xamee sa farata yi rek xam aslëf ci sunna yi te jéem koo jëfe bu ëllëgee fu boroom xam-xam yi taxaw xam ngeen ne borom xam-xam yi bu yonent yi wéyee ku mënul awliya yi wéy ñoo ci topp te ñoom sax dañoo jaxasoo awliyaaw yi ndax bari na si ñoom ñu nekk ñu bokk ci awliyaaw yi fu ñu taxaw nga taxaw fa li tax ñu ne kii sàkku xam-xam waxtu wu jógee ni nga xamee ne dangay gis sa xarit mu sañse nga fab li nga koloo woon wala yére bu rafet lalal ko ko ci kanamam ngir di ko teral wan ko ne bëgg naa ci ni nga mel malaayika yi noonu la ñuy lalee ay laafam ci kii sàkku xam-xam te kii sàkku xam-xam ki ëppalewul tuyaaba ki koy dimbale dañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kun aaliman aw mutaalliman aw muhibban wala takun li xaamisata fa tahlika Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu anhu ne eh, way ko kun aaliman aw mutaalliman aw mustami'an aw kun muhibban li zawi na nga nekk di borom xam-xam wala. nga nekk di kii sàkku xam-xam kii sàkku xam-xam na kii wut lu mu xam rek ak nu mu ko anam gu mu ko mën a wute donte dafay fekk fu ñuy waxtaane mu déglu ko jàpp ko it ma ngay sàkku xam-xam wala nga nekk ki koy déglu fa ñuy waxee xam-xam nga di ko déglu wala boo mënul ñett yooyu yëpp nga sopp leen ngay aji ñeente waaye bul nekk juróomeel bi dangay ngay alku kon juróomeel bi mooy ki ci ki ko faalewul du ko tax a taxaw du ko déglu soppul ña ca nekk nekkul ku koy sàkku amu ko itam mu ne da ngay alku ëllëg ñu lépp xam ko mooy tax jullit ñi mën a doon bopp benn jullit ñi ña ca penku ña fa gën a sori ci penku ak fa ña nekk fa gën a sori ci sowu benn lañu ñoo raw ñu bokk ndey ak baay ndax jullit yonent bi sallallahu alayhi wasallam defe ne jullit ak jullit dañoo mel ne tabax bii ni nga xam ne noonu la birig yi jàppaloo ba tabax bi dëgër noonu la jullit ñi ci seen xol yi war a jàppaloo mu xam le itam ne bi nga xamee ne da ngay jàpp benn bant bés ko mu damm nga boole bant yu bari bés leen ànd gi ñu ànd ñu takkale ko tax du mën a damm jullit ñi bu ñu nekkee benn dañuy am kàttan goo xam ne dara du leen ñaaj dara du leen yàqal dara du leen not itam waaye bu fekkente ne jullit ñi kenn ku nekk danga ngaa téye sa bopp loolu fu muy waree mooy yàqu-yàqu boo xam ne xam nga ne mënuloo koo faj te ragal nga ne boo toogee wéy ca ñu yóbbaale la ca wala ñu wàññi dara ci sa ngëm bu keroogee yoon moom santaane na nga gàddaay ndax gàddaay du fi jóg mukk hmm? ban waxtu jot noo ngi leen di delloo sant di leen ndokkeel itam ci jataay bi yàlla na suñu boroom jéggale bàkkaar yépp ñu fi indiwoon faj tawat yépp defal ñu fan yu gudd te boole nu ca ñamu tànn nga xam ne